أعوذ Billahi من الشيطان الرجيم بسم الله wa la ولا حول ولا قوة إلا بالله mbokk yi ñi dëkkaat ngeen ci seen yóbbalu suba batay tey ñu ñëw ci basmala di bismillahirrahmanirrahim mom bismillahirrahmanirrahim ay bari ba tax saa dan dañ ci tan yenn rek ngir mbokk yi gën koo mën a jëriñoo mu mel ni képp koo xam ni da nga am mbokk mu febar mba nga tawat yow ci sa jëmi da wax bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ba muy ba muy téeméer yoon boo ko defee benn fan ñaareelu fan ba nga waxaat ko bismillahi rahmaani rahim ba muy téeméer yoon ñetteelu fan ba nga waxaat bismillahi rahmaani rahim ba muy téeméer yoon inchaa allahu taala yàlla subhaanahu wa taala dina dindi tawat joojee ci yow mbaa ci sa mbokk moomee nga xam ni moom nga ko defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala